yëngal dossier li nga xam ne moom mooy moom mooy euh, kii di euh, Ndiaga Diouf parce que c'était sûr que xam nañ ne Barthélémy Diaz ak c'est vrai que communication politique bu muy mënee courage bu mu am vécu politique bu mu am et tout c'est un prétendant sérieux pour la ville de Dakar donc tous les moyens sont bons te régime bi surtout loolu mooy seen fort pour éliminer un candidat boo xam ne mun na def obstruction par rapport bi nga xamante ni euh, mois de juillet passé la woon est-ce que euh, tey jii nii duñu mënuñu jàpp ni peut-être c'est juste encore une question euh, waa Yewwi Askan Wi est-ce que manqué wuñu de vigilance par rapport à cela oui man loolu beneen aspect la peut-être ñoom bañ koy doon élire def ko tête de liste xamoon nañ ne Barth a un dossier pendant devant la justice maintenant bu fekkee loolu dafa am te mu xam ne ne kat régime bii ñu nekkal kat ci loolu moom dañ ci ay surtout ki nga xam ne moom mooy njiit réew mi boo amee dossier de justice moom bu ñu jubee élection wala lépp lu mu mën a def mën na ko def pour galgal la ba tax doo jàkkaarloo moom pour pour wàññi ko par rapport ak ci joute électorale mu jëm mais da def. donc peut-être ñoom jàpp nañ ne xaj na ne kat ak Barth li nga xam ne arriver na ko. Euh, état bi du ci kii mais il fallait pas compter surtout surtout sur ça pour ne wéy état bi du def loolu parce que gis nañ dossier Khalifa Sall gis nañ dossier Karim Wade qui sont plus balèzes que ki nga xam te ne nii moom mooy moom mooy Karim euh, moom mooy euh, Barthélemy Diaz en son temps te teewul fan la mujjee tey jii nii Karim Wade ñu ngi nii fan la nekk ma nga Qatar Khalifa Sall mi ngi nii mënul voter ainsi de suite Ousmane Sonko tam mi ngi am dossier loolu yëpp dañ koy téye bu ko defee mu doon épée de Damoclès te loolu ñoom waa Yewwi Askan Wi waroon nañ ci xaw a prudent bu baax a baax maintenant bu fekkee ne def nañ ko tëdd liste ñu jugé waat ko en appel certainement le 10 on mhm, aura le mhm, verdict mhm. mais suñ ko condamné encore moom mu mu li nga xam ne mu tënku ci article 29 ak article 31 muy li dal Khalifa Sall ma foi boobu mooy tulli su boobu day foreclose euh, xam nga comme li Seydi Gassama wax euh, ci yenn ci euh, journaux yu ko fësal tey. Mm. il faut être naïf pour penser que c'est un simple hasard du calendrier. cela mm. veut donc dire que comme li nga doon wax tombé waral ay gaaf mais est-ce que du euh, question boo xamee ni tey dañu wut prétexte pour justement tenter d'écarter quelqu'un oui, euh, mais surtout le moment politique ce serait assez dommage euh, ñu bëgg jël euh, wàlluk yoon pour teg ko ci ndoddu nit pour juste l'écarter sur le plan politique loolu je j'utiliserai hypothèse la rek nag hypothèse Iran mais si c'est cas. je dirais que c'est petit. en tout cas euh, nañu wax nag euh, ci leneen na ah, lu nga xamante ni ça n'a absolument rien à voir avec la politique mu nekk euh, benn coono goo xamante ni fi mu ne daanaka gox yu bëri ñu ngi koy dund muy ñàkkum ndox ba nga xamante ni nemmeeku nañ ko loolu fii ci suñu dund ba tax na ñu ngi wax ni que ni l'usine Kër Momar Sarr KMS 3 est à l'arrêt donc ñu ci bëri ñu ngi ŋàññi fi mu nekk nii Sen'Eau di xamal ni que ni ba tey rek Malika moom toog nañu lu mat ñeenti fan te amuñu ndox mu nekk loo xamante ni ñu ngi koy ñaawlu loolu. waa non seulement dañ koy ñaawlu mais attention au pouvoir en place attention au gouvernant gis nga y a des questions yoo xamee ni euh, dañuy jàpp ne amul politique wala warul am conséquence politique mais souvent malheureusement day am conséquence politique. Mhm. parce que gis nga nekk ci yenn gox yi nga xamee ni tey euh, ndax euh, jafe-jafe yu am ca KMS mhm. amuñu ndox ñooñu bu ñuy dem ci ay élections. te élection yi yàggatul c'est en janvier bu ñu dem ci ay élection ñoom doot ñu xool ni peut-être maire bi moom yoonam newu ci am ndox wala ñàkkum ndox hmm. mais dañuy xool ne ni kii par exemple mu ngi bokk ci coalition au pouvoir hmm. mën nañ ko sanctionner justement hmm. à cause de euh, manque doo bi ñu am donte euh, euh, aucune incidence sur sanction, sur oui. ça mais mm -hmm. votre sanction boobu parce que dañ naan kii di maire bi dafa bokk ci benn coalition coalition boobu moo nekk au pouvoir te pouvoir boobu moom moo fexe ba euh, peut-être ñu ay jafe-jafe ndox mm. alors que euh, du am benn corrélation seen biir mais dina mën a indi vote sanction mm. mais ce qu'il faut surtout ça sur le plan pratique les autorités muy pour wàllug ndox mi di pour wàllug courant di pour wàllug yi nga xam ne ay jumtuwaay la yu askan wi di soxla mm-hmm. nañu fexe di ko régler au, au préalable préalable mm. régler ko également définitivement mm-hmm. mënoo fi ñëw ne ni KMS 3 am na euh, problème ndox amatul mm. ba pare après nga ñëw pratiquement chaque mois wala chaque deux mois mm-hmm. euh, nga gis benn communiqué bu SONES wala SDE di xam ne ni on va couper pour euh, trois jours euh, et cetera parce que on a un problème dañu am ça c'est Euh, situation la boo xam ne faaw ñu rek mi ngi noonu Mamadou mi ngi mel ni ni que bi muur na euh, problème yoo xamante ni ñi ngi koy dund actuellement ñàkkum lekk geeg ñàkkum ndox gi ñàkkum courant gi lépp fi mu ne ma ngay mais mais xam nga leneen li gën a garaaw sax man euh, mooy li xew li nar a xew parce que en Europe on parle de quatrième vague ki nga xam ne moo yor wàllum santé gi moom ville de Dakar lay toppatoo donc ce extrêmement grave parce que yow la la survie des gens intéressé wu li la intéressé mooy na nga dem campagne ay ville de Dakar tey amul benn communication boo xam ne ñu ngi ko ciy def pour artu nit ñi wax leen ne feebar bi mi ngi fi ba léegi nañ ci def attention nañ respecter les gestes barrières nañ ci def leen beneen bi mooy li nga xam ne moo jëm ci KMS 3 bii nii donc mu nekk loo xamante ne nii kenn mënu ko comprendre régime boo xam ne yow chaque jour da ngay li nga xam te ne nii moom mooy ay ay liggéey mais au finish lañ ci am comme résultat du lu neex nit ñi qu'est-ce qui s'est passé avec la terre kañ lañ fi indi terre bi kañ lañ wax na ne day daw ñaata date nañ fi joxante ñoom ñëpp les ministres qui se sont succédé même le président de la république avancé ay date ba léegi nii c'est le statu quo KMS3 bi da xam ne ne c'est dans la précipitation parce que bëggoon nañ rek gëmloo sénégalais yi wéy problème ndox mi ñi ngi tapé seen eau ngi wax ci